Barça wala barsa du góor du jigéen léegi ñëpp a pare slogan bi léegi ñëpp xam nañ takk jóg is either this way moom dem rek si jaww ji wala si ndox bi safe flight wala safe boat o inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ak lu munti doon moom dem rek gaaw sa moom manqué dëkk bi ñëpp a pare du daat du meer ñëpp a stress ejeen sa moo jafee gis man suma maam rek laa mere ndax bu nañ jàpp ñoo Kunta Kinte warutoon naa nëbatu nit ko jàppale ni ko tamit maa ngi biir si des moom soo leen ma gisatu rek xam leen ne maa ngi si gaal bi ragal du teg ba mu sotti. I don't want to say rubbish here.